Ousmane Sonko peut-être euh, de la faim nekk en réanimation euh, loolu yëpp peut-être euh, mu alarmant ñu ngi koy wax ñu gis ne que ces avocats quand même ñu ngi euh, internationaliser justement la lutte dem ba yóbbu ko au commissariat des des droits humains. est-ce que aujourd'hui jàpp nga ni que loolu dina nekk moyen de pression peut-être par rapport à l'État du Sénégal vous croyez que. mais en, en termes de lutte il euh, y a plusieurs formes lutte. et ñu ci nekk dafa am lu ñu leen jagleel avocat yi dafa am role bu ñuy joué parti bi am rôle bi muy joué des membre des maanaam des organes du partie bu ci nekk ak rôle bi muy joué les avocats ñoom ñooy nekk ci wàllum justice mais ñëpp xam na justice Sénégal nag la deme justice su kumba am nday la ak kumba amul ndey deux poids deux mesures wala euh, Euh, nu ñu koy waxeeti Demba amul baay Dupont am baay looloo fi am ce qui fait que tey boo njëmatee ba réew mi kenn yaakaaratul ci justice parce que léegi justice bu la bëggee jàpp yomb na léegi moom soxlaatuñu ay motifs d'autant plus que ñu ñu jàpp ñëpp ñu nekk ci kaso yi c'est presque les mêmes motifs c'est atteinte à la sûreté de l'État appel xawma lan à l'insurrection association de malfaiteurs c'est-à-dire dañu yegg ba ci di jàpp ay nit di leen boole di xool ndax xamante nañ wala déggante nañ pour mën leen boole pour ñu nekk ay association de malfaiteurs ñu naan force occulte terrorisme et cetera c'est comme si ñoom dañu yàkkamti sax terrorisme am ci réew mi ba ñu mën ko utiliser lu xew ci réew mi rek léegi seen notes yi ñu bind ci terrorisme matériel bu ñu yàq sax ñu ne terrorisme bu ñu xamoon terrorisme ak li muy indi cim réew ñu musal gàngaal ñu lu baax parce que gis nga àdduna dafay jeex amul ku yaakaar ne nguur di ko mën a nekk pérenniser ko wala teg fi nit wéy di ko yor c'est parce que tu as une mémoire courte wala doo jàng ci histoire est-ce qu'ils sont dans cette logique mais plus que dans cette logique parce que il a carrément dit que du nekk ci candidat même bu fekkee ne que day am dauphin bu muy teg mais euh, rien ne dit qu'ils sont loolu de qu'est-ce qu'ils ont fait yamul ci loolu lan candidat mm-hmm. li la tere nekk candidat ñëpp xam ne dañ la sës ci bi loolu mooy dëgg mu neex leen mu naqari leen. mais à chaque fois xam boobu bi mu demee ba sës la dafa mës a jouer le clair obscur xam nga ne bu doon nekk bu fas yéene wul woon nekk candidat duñ fi nekk tey problème mu am tànn candidat kon rek réglé na ko bu yàgg mais c'est parce que dem na ba amatul choix mu ne ñii nga xam ne ñoo xeex ba terema nekk candidat man du ma nekk candidat de waaye du ñu am jàmm ci réew mi loolu rek moo tax xoqatal bi ak jël lu ne ne danga koy teg ci kaw président Ousmane Sonko la preuve on est à six mois des élections hmm. en principe parrainage yi mi ngi waroon commencé le 28 août. le 28 août. mënuloo xam ki nekk candidat ci réew mi mais loolu gàcce mënu ko weesu. mënuloo xam kenn xamul kii sur la ligne de départ. mais personne. parce que ñay yaakaar na ña ngay wër di campagne ak ñay yaakaar ne yow ñoom libéré na leen ba mën nañoo bokk. <laughs> dañoo xamul fi waa jëm rek mais bu ñu ko xamoon dinañ xam ni. lay dëgg mooy taxaw xeex ngir organiser des élections libres et transparentes dans ce pays le Sénégal wala les Sénégalais mën a tànnal seen bopp mais du ñu tànnal ku Sénégal yi tànnal te foofu dafa am solo di tax ma ci insister. Mm. parce que tey lii daal Niger lan moo ko indi un président qui était là dem na ba ne du def troisième candidature maanaam damay respecter constitution bi. mais qu'est-ce qu'il a fait dafa tànn candidat parce que Issoufou dafa tànn Bazoum mm-hmm. mais bi mu tànnee Bazoum yamu ci mais dafa bloqué le chef de l'opposition tëj ko mu bañ a bokk ci élection yi mais qu'est-ce que Macky Sall est en train de faire en ce moment dans pays ba liir naa tey ci journaux yi mu ne xaw ma euh, day wàcc ci combat bi début pendant fin campagne bi yëpp parce que bakkanam la ci teg pour que ñoom ñi gagné ñun xoolal À vous entendre parler, El Malik, on a l'impression quand même que... Euh... Il a cédé à la candidature, mais pas au pouvoir. Oui, oui, ça, peut-être vous êtes libre de le dire. Mais euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, au Niger, parce que nous gis ñuy joxe exemple boobu lu bëri est-ce que tamit euh, war nañ jël yenn exemple yi di ko di ko di ko même véhiculer parce que c'est grave ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé au Niger. Mais justement, lu tax ñu koy véhiculer, c'est pour éviter loolu am Sénégal parce que CEDEAO nañu respecter africains yi respecter seen bopp coup d'état boo ko bëggee lijjanti da ngay xool lan mooy indi coup d'état te coup d'état militaire coup d'état constitutionnel moo koy indi des présidents wala un syndicat de présidents qui est là qui sa qui qui en, en réalité qui s'autoprotège qui s'organise toujours pour ne pas respecter la constitution pour ne pas respecter les lois pour changer la constitution comme bon leur semble juste pour pérenniser leur pouvoir Mais c'est à condamner quand même. Mais la preuve, quand la CEDEAO a voulu voter la loi pour, pour euh, euh, les règles pour limiter les mandats dans l'espace de la CEDEAO à deux, mmh. il, y a deux il y a deux présidents qui n'ont pas accepté. Sénégal, Côte d'Ivoire. C'est Sénégal et Côte d'Ivoire. Allez voir le trait d'union pour comprendre. Mm. tey loolu moo dem ba indi Niger ñun nous ne pouvons pas être d'accord euh, sur des putsch mais bañ cee accord du tere nga wax ci parce que bëggoo mu am ci sa réew lan moo indi putsch yooyu lan moo tax léegi coup d' bu amee askan wi jóg di tàccu mais c' parce que askan wi dafa sentir ne dañ leen libéré tey Sénégal ñu ngi dund dictature boo xamante ne nii mais nit ñi kenn noo yeetul kenn noo yeetul yaa ngi koy wax tout à l'heure euh, peut-être dañuy xaar une élection libre transparente mais inclusive également euh, mu am ay kàddu yu jugoon nekk peut-être président de la République euh, bëggul bàyyi nguur gi maintenant dañuy euh, xalaat sax ne que njort ne que mën na pousse lii di élection yi de deux ans est-ce que mën nga yaakaar loolu peut-être ne que dafa bëgg pousse élection yi El Malick dara du bett ndax ingrédients yi yëpp a ngi fi. yan ingrédients par exemple. benn. Hmm. comprendre ma li tax. ñoom mënaguñu am candidat ba léegi te bu ñu amul candidat xam nga ne duñu organiser ñoom ay élection yu ñu bokkul ñaareel ba comprendre ma cette obsession à vouloir aller vers une guerre au Niger en Afrique dans le Sahel qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion su fekkente ne ñun Sénégal dafa nekk au devant de la scène may rappeler ne askanu Sénégal validé wuñu ko assemblée gisaguñu ko ba koy valider donc ñoom moom koo xam ne da ngay jeexal dans six mois mënoo décider au nom de dix huit millions de sénégalais waru ko xalaat mais ñetteel ba. Mhm. xoqatal bi nekk di ñu teg ak jaay doole bi c'est comme si c'est pour que ñu fippu réew mi jaxasoo pëccaxoo xëy na mu nekk une occasion pour repousser les élections vous pensez mais dara du ma bett parce que koo xam ne da nga bàyyi mbir malgré toi buggoo ko woon a bàyyi ñàkk pexe tax nga bàyyi ko noo mën a defaat pour jotaat. mais et la classe politique dans tout ça et l'opposition dans tout ça parce que peut-être du ñu toog 17 ans le président de la République Macky Sall muy décidé euh, justement pousse élection yi ak élection présidentielle lu mu représenté Sénégal. opposition bi ma xam daal muy Pastef ak yenn parti yu ànd ak ñoom ci Yewwi Askan Wi ak yenn mouvement yu mel ne ay FRAPP ak yooyu. ñu ngi xeex parce que comprendre lañ loolu ñeneen ñi nga xam ne nag leneen lañ comprendre di doxalee neneen dañ leen tey bàyyeeg. mais lu tax ngay xaaj opposition bi. xaajuma ko. dama ci ñi ma xam laa mën a wax. on a l'impression que da les uns les autres et les et cetera. ci ñi ma mën a wax et cetera de waxuma ko xaw ma ko ma ko utilisé woon <laughs> euh, li ma mën a wax mooy nit da ngay wax ci loo xam man ñi nga xam ne maa ngi jonjante jonjanteeg ñoom di wax ak ñoom tout le temps di liggéey ak ñoom. mu wóor ma ne ni ñii dañoo am yaqin ni dañu war a continuer di résister di préserver la démocratie parce que xam nañu fi exemple ak Sall bëgg a jëm ñooñu bir na ma ne ñoom comprendre nañu les enjeux de l'heure te ñi ngi taxaw temm di ci xeex ñeneen ñi nga xam ne comprendre nañ leneen wala jàpp nañ ne baare yi koy joxe nguur wala leneen ak leneen dañ leen koy nangul. faites allusion à qui? à personne ah képp koo xam ne gis na ci boppam rek. alors euh, euh El Malick euh, bon waxu pousse élection moom vraiment Sénégal peut-être euh, euh, on va dinañ ci waxtaanaat. je ah, pense que dinañ ci waxtaanaat mais. je le souhaite pas hein mais ne soyez pas surpris. que ñu pousse ko. oui. parce que vous vous, vous avez l'impression que ñu ngi travailler peut-être ci suuf président de la République ak ñenn ci. opposition bi nee naa la eh, parrainage bi kañ la waroon commencer. le 28 le 28 ak loi bi ñu bi ñu voté sax je pense que dañ ko retardé waat encore ba ba ba ba fin septembre. mën mënu goo xam ci réew mi ka mooy candidat ça veut dire quoi ça est-ce que mës nañ ko gis ci réew. ça veut dire que ils pour nga ñëw changer mode de parrainage bi def treize députés pour que nit ku ne mën nga tëdd nelaw ba décembre nga def sa déclaration candidature. Mhm. yooyu yëpp nañ ko calculer bàyyi ko xel. lan moo lalu ci suuf. pour yow pousse la. Ah, on verra. alors euh, ñu ngi koy wax participation inclusive na ñëpp bokk ci ci ci élection yi looloo waraloon d'ailleurs il eu le le le dialogue national dialogue bu président de la République tendre la main aux forces vives de de la nation peut-être yenn kàddu jóg si ci ci dialogue boobu Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade peut-être demoon dialoguer pour mën a bokk ci élection yi pourquoi loolu nangulu leen ko kan moo leen ko nangulul. waaw yéen waa yeewi askan wi déjà génne nañ leen ci yeewi askan wi waa ñoom xalifa Ababacar Sall PDS n'en parlons pas parce que peut-être ñoom dès le début. la ñu la waane di wax ci turu conférence des leaders yeewi askan parce que bokkuma ci. la Ousmane waxoon euh, Bart ne ko bokkuloo ci leader yi mën nañ ma ko opposé tamit donc li ma mën a wax mooy ñun dañoo. amoon benn mbébét te moom lañu am ba léegi te président Ousmane Sonko gëm ko yàgg ko wax ci élection 2019 la ko njëkke woon xam nga nit ñi dañu gaaw a fàtte moo tax muy bëgg di def ay hmm. ci la waxoon opposition bi nañu fexe ba xeex ba Khalifa bokk Karim bokk ñu imposer un ministère wala benn autorité bu neutre mu organiser élection yi ñu dog cee dem ñu xeex parrainage bi hmm. groupe bañ ko doon waxtaanee ñoom leader yëpp nekk ci ñuy euh, ci groupe mailing bi président Sonko envoyé mail wax ko ne bu ñu defee lii ak lii nangu ko ñu boycotté ñu ñëpp bàyyee ko élection moom kese qu'est-ce qui s'est ñu jël mail bi tas ko ci mbedd mi taxul mu bàyyi de ñi dem parrainage parce que xëy na ñoom jàppoon na ne ñun duñu am parrainage et cetera on a yi la meilleur parrainage ñu jàll nekk cinq candidats donc quatre entre guillemets de l'opposition ndax tey euh, histoire wane na ne benn rek moo ci nekkoon opposition ndekete ci cinquante candidats yi <laughs> mais oui. yaa ngi tooñ de. mais loolu looy dëgg ci ñett ñeneen ñi ana ñu ñu ngi opposition wala ñu ngi pouvoir. <laughs> donc loolu dafa leer am ñu dellu opposition. déedéet xam moo ci dellu opposition ma dikkee bàyyi na. Euh, Idrissa Seck moo koy def ah, moom le chef de l'opposition. waaw ah, d'accord ba tey <laughs> li am solo mooy. boobu waxoon na leen ne ñun carte lañ bu ñu renoncé ne duñu bokk Macky sera seul avec ses élections il sera obligé de organiser des élections mm-hmm. gars bañ loolu mooy dëgg mu continuer mais bi ñu jàllee dafa wax Khalifa wax Karim su ngeen yaakaaree ne eh, dinañ leen yombalal seen bokkaat ak yooyu da di taxaw xeex gis nga buñ taxawee xeex mm-hmm. fexe ba gagné local yi gagné législative yi jël suñu assemblée changer loi bi parce que lépp liñ ci tabaxal mooy la notion d'électeur bi nga xam ne dugal nañ ko ci article yi L 30 L 29 L 30 L 57. Mhm. ngir gàllankoor. ay ay candidats. bu boobaa dañuy am latitude voter ko modifier ko code électoral bi jàmm na ñooy ñëpp bokk. te pourtant boobu président Ousmane Sonko amul dara lu ko teree bokk bu doon day réfléchir comme ñoom danaa naa leen bàyyi ci touche yi man ma continuer sama xeex tranquille ñëpp d'accord ci ñu ñëw ci intercoalition charte yeew yi d'abord bi ñu mettre en place charte bi mais loolu la ñu wax moo tax su ma déggee ñuy génn naan ba ba ñu bloqué xalifa xeexaluñ ba ñu bloqué Ousmane Sonko dafa xeex ba ay militants am commencé woon ko mere ndax dafa bàyyi boppam bàyyi parteem di xeexal xalifa di xeexal Barth di xeexal Karim. loolu ñëpp di teg nañ ci bët. loolu loolu attends ma terminer foofu dafa am solo. allez-y. dem naa ba dégg ne sax. que dañ leen a iñaane bokk bi ñu war a bokk. justement foofu laa doon ñëw parce que jàpp nañ ne que dañoo yàq yéen da ngeen yaakaaroon ne que euh, Khalifa Ababacar Sall du bokk élection bi mu demee ba ngeen gis ne que effectivement mën na bokk ngeen commencé. xam nga la moo tax ñu problème mu kenn bokk ci élection yi ñu dañoo liggéey loo xam ne ak ku mën di bokk am nañu yàqee na ñun dañuy gagné te loolu ay preuve lañ ci am gis nga bi ñuy def liste locale yi ak législative yi. parti bokk yeewi askan wi yëpp ñu ngi may dégg ñi ci bëri ñoo xam ne ñu ngi leen di dégg tey ñiy yóbbu dañu amoon problème couvrir le territoire national deux candidats loolu tax d'ailleurs Pastef s'est retrouvé avec beaucoup de maires beaucoup de conseillers beaucoup de députés la moo tax dans Yewwi c'est parce que on était les seuls à pouvoir couvrir tout le territoire national et la diaspora parce on a un appareil Parce on a travaillé pendant des années à construire le plus grand parti, le, plus, le parti le plus organisé du Sénégal. Mais, mais El Malik, ñoom ils se sont battus. ils se sont battus pour bëgg bokk. déglu rek amul problème waa léegi la ñu waxoon mën a bokk. la ñu waxoon pour te dire parce que dafa am sëñ Babacar Si da doon wax ne weddi tuuma du ragal. Hmm. ñoom dañu jàpp ne ñun dañu leen bëgg a xeex dañu waxoon ci charte bi que ni. bu ñu euh, dañuy taxaw fexe ba xalifa ak Karim bokk mhm. dialogue bi kañ la am xam nga dialogue bi yàggul mhm. lu jiitu dialogue bi ba ñu demee élection ak la ca am yëpp ba suñu liste national jàpp parce que ñëpp xam na ne liste nationale bu jàpp jàlloon mhm. Sonko jiitee euh, nekk tête de liste ñëpp xam na ne dañ doon am majorité parlementaire la ca xew ba liste ba jàllul allahu alam dañu jàpp ne erreur humaine la rassurez-moi jàppoon ne ko combine la woon. dañu jàpp ne erreur humaine la j'ai j'ai été précis euh, kii très précis. Mhm. ñu dem malgré tout ñu am 82 députés. waaw wala jël seen yoonu bopp génn ci 82 yi. Mhm. ñu nangul leen ko chacun est libre. oui mu des Yewwi. Mhm. président Sonko ne comme waxoon nañ ko nañ ko waxee woon ci élection yi nañ defar proposition de loi bi modifié L29 L30 L57 ñu jox ko groupe yooyu euh, groupe parlementaire yi mu dem déposé ko li ma lay wax ni mhm. février 2023 diggante fin février ba mars début mars xam nga loolu moo jiitu dialogue mhm. président ko wax na ko pour ñu changer ko pour Khalifa Karim mën a bokk mais comme moo gën a gore kooku mais joindre l'acte à la parole Oui, c'était porté par Guy Marius. Avant Guy Marius Sagna lii lan lañ ci bind proposition de loi bi. modifiant les articles L29 L30 L57 du code électoral présenté par Babacar Mbaye député secrétaire. Abba ah, Mbaye. oui xam nga lii lan la. Mhm. bi ñu liggéeyee ci proposition de loi ba pare. pour te dire démarche inclusive Birame Souleye mooy président groupe parlementaire. Mhm. dañu jox projet bi Abba pour mu porter ko mu dem yóbbu ko taxawu. dama bëgg mu dem télé mu wax lan la ko waa taxaw tontu. lan lañ ko wax. lan moo tax ñoom wuñ ko déposé. proposition de loi bi te proposition de loi bi bu changé woon L29 L30 L57 jeex na tàkk. ñëpp ñëppay bokk. qu'est-ce qui s'est passé. ah ñoom ñoo xam li tax buñ ko woon a validé ñu préféré dem valider ko ca dialogue bi loolu la sénégalais war a laaj mais taxul ñu arrêté mais est-ce que est-ce que fii yaakaaruñu ne woon. déposé wuñ ko de. oui mais est-ce que xalaatuñu ne que quand même euh, euh c'était jouer quitte ou double parce que suñ ko déposé est-ce qu'ils allaient avoir la majorité qui allait voler qui allait faire euh, passer cette loi. ah majorité bi du ñoo ko voté cette fois-ci. waaw mais. waaw mais non defal ndànk rek mais ñun dama la bëgg a wax ne conséquence weesuwul la ñu waxante woon ñi def ko te encore une fois sénégalais yi seetaan dama bëgg ñu xam ne lii moo jiitu dialogue bi. parce que ginnaaw ñoom biñ ko gàntalee ah, yamuñu ci. dañuy jël affaire bi jox ko Guy Marius Sagna mhm. moo nekk nii le 7 mars le 7 la ko déposé 2022 ba tey soo xoolee article yi nga xam ne moom moom moom lañ ci wax mhm. mu ngi nii article 1 article 2 article 3 maanaam L29 L30 L57 ñu wax ne nañu dindi notion électeur bi ñu ci dugal pour que mu nekk des élections euh, une élection inclusive ñëpp mën a bokk moo tax bi ma leen gisee ñuy wër ci tele yi di wax man dama jaaxle alors que toutes toutes ces actions wala euh, yeewi askan wi la conférence des leaders le président Ousmane Sonko les députés le groupe parlementaire de yeewi amul lu ñu doxul pour que lii ñu déposé ko mais bañ ko déposé nangu sax déjà ñu ñu fer passer la loi sax au vote wala quoi que ce soit ndekete boobu dialogue commencé na bu yàgg donc c'est pour ça ci lii ngeen sukkandiku peut-être pour jàppoon ne que dañ doon deal ak président de la république. ah xam nga lii moom dafa leer. c'est très clair. ndax lañ waxante woon ba teg ko. xam nga lii tey mu ngi door a feeñ lañ waxante woon ba teg ko bu ñu ko yóbbu woon ñu ne sax voté wuñ ko. dinañ comprendre waaye ñi taxoon ñi koy def parce que je rappelle que le président Ousmane Sonko reste toujours éligible malgré li ñu jéem yépp yàlla dogal na ne éligible na parce que ñoom ñoo réer ci seeni mbir ba mel ni kaset bu lëj comme ni ma koy waxee malgré tout ñu ne ñun dinañ respecté affaire yi waaye la tax ñu dem si dialogue ne L29 L30 rocc L57 parce que jàpp na ne L57 mën na bloqué Sonko ndax l set la muy wax la donc lii je pense que dafa leer nañ nañu respecté sénégalais yi ku mu neex nga dem waxtaan ak ku la neex lijjantee noo bokkee après ak sénégalais yi la waaye ñun duñu nangu dualité ak benn parti fii ci mim réew ñun dualité ak système lañu nekk te lépp lu ñu wax ak action bu ñu def dañ koy mën a expliquer parce que 2014 ba léegi cohérence la te cohérence ak persévérance moo ñu yegg si fii ñu yegg tey ba nga xam ne mais ñoom euh, El Malick suñu jàppee ne que voix wu dem dialoguer ak président de la république moom moo gën a gaaw également loolu mën nañ leen ko nangul. nañ dem te assumer ko dégg li ma la wax. xam nga ñun xam nga président Sonko xam nga lu gën a gaaw. mais c'est que yéen li ngeen doon wax au début avant avant Khalifa. mais c'est que yéen li ngeen doon réaliser. ba fi Idriss Seck décidé rejoindre Macky Sall. Mhm. réunion d'urgence lañ convoqué. président Sonko électorat bi nekk fii contre le pouvoir ku yaakaar ne dañ cee téye dara ba mën nga koo jël yóbbaale ko ci Macky mooy xaw yow da ngay xaw ma nu ñu koy waaye da ngay sël mu jëmale ginnaaw comprendre li xew ñi ko def ñëpp bu ñu demee au contraire waxuma la duñ yóbbaale waaye dañuy dem sax fekk lañ fa fekk génn parce que ils vont créer des frustrés la ba moo tax ñun amuñ ci defar amuñ ci yàq de la même manière bi taxawu ak euh, comment dirais-je wàllu décider dem non on ñun demuñu waaye ku ku mu neex na nga dem waaye ñun demuñu parce que ñun dañu jàpp ne loolu du dialogue lii moo gënoon a gaaw soxlawul amnistie soxlawul dara assemblée nationale na ko voté mu nekk élection yoo xam ne yu inclusive ñu xool naka la ñuy lijjantee parrainage bi pour ñëpp mën a bokk parce que diñ ko doon xeexee 2019 lañ ko xeexaatee 2024. léegi mais comme ñoom dañoo préféré dem voté lu loo xam ni day régler taillé sur mesure. loolu tax régler ñaari cas. loolu tax député yi bu dee introduire saisine conseil constitutionnel.